gaare bi non non yoon bi moo baaxul. mais maa ngi sëgg de. motu motu motu motu. ah Sarr kii gaal la. man jaay xool ma. man jaay sama yow. man Sarr kii gaal la. ndeysaan loolu daal leen. mais maam sa digal jog soppa yi lan la maam. ah moo ma jaaxal de. boo dem maam maam maam maam maam Ndiaye. xale xale bii di daw nii ndeysaan. man ko kenn mënu ci dara yàllaa ko dogal. dafa romb ndekki maam. kenn mënu ci dara. Wadu wadu. maa nga def kasu rajab ca ci réew mi ñëpp waaw réew mi moom yëngu na à tout moment nga ñëw nar ko fii ci appel bi waaw xam nga suñu mbokk laayee ni ñoo xewle te ñoom dañoo baax macha allah bu ñu xewlee rek réew mi day daal di yëngu à tout moment ndax nee naa la ñun ñu ngi fépp mm-hmm. ndax ñun ñëpp benn lañ. ñëwal avancé la ko ñun ñëpp benn lañ. moo tax sa balan. waaw ma def sama balan rek. dooleel leen ah ñoom balaa la ñu woote kay nee nañ. ñu ne ñu def balaa rek. mam mam daaw non non. salaamaaleykum. daa leer. yéen daal nee ngeen yéen daal yéen xam nga da ngeen di bañ a gis. rosi salaam. lan ngeen taay. yéen mbana ak rosi ngeen di bañ a gis. yéen daal lii ngeen lu xewle. mbana rosi lépp yéen a gis. yàlla na yàlla defal jàmm. da baax nag da ngaa bëgg journaliste yi de. journal waaye dina am sa nokk journaliste yi. <laughs> li ngeen ma bindal lépp ci réew mi yéen a ñàkk doom te ñàkk ngor. alaaj dalal nga ñu non dama am ñu ko def waaye ñenn ñi nga xam ne ñoom xàmmee nga leen bind bind lu bon ñu def lu def loolu wax dëgg yàlla yéen da ngeen a baax sa bind lu baax mais ay noppi gar bi ngeen yor yor ay bind gar bi te foo fekk journaliste buy bind lu baax day am lu baax kenn mënu ci dara waaye ñoom ñi nga gis ñu bind lu baax gisoo leen dañuy geree rek seen i fil di maas ak seen i image di geree lu waay wax doo ko dégg dox dox dox dox. mais John. dox euh, kër. John daanaa nga. sa xarit baa ngi nii bëy gi. sa xarit baa ngi nii bëy gi. sa xarit bi bëy gi. waaw. Ali. awa Amar la woon waaw maa ngi ci biir. ma ci biir. mais lu tax nga bëgg a xuloo Pak, awal kabak ya. bilaay ndeysaan déggal lool salaamaaleykum laali naa na nga jaar merci waay merci boy boy jàmbaari sëñ Fallou di ñëw yow boo egsee war naa wax ci yow bilaay ndeysaan sama rakk bi ñëw na yow boo ñëwee ma sama rakk moom moom ñëw la mbaari sëñ Fall yaa tàntal sëñ Fall ba ci jëm defal sëñ Fall ko defal ci ñëw ci appel laay instant bi indi na saar bi indi na saar bi indi na saar bi man ngay saboo indi na école bi dogal ma ko fii dogal ma école bi fii bu toogee ñu dalal ko am ngay sebo ci kon bi ci loolu si sa baay yaa ci jàmm bilaay ndeysaan dëgg la bilaay dëgg la amin waay amin ma fi maa ngi nii toog yaa ci jàmm ça va namm naa la léegi nag su toogee ngeen dellu su toogee ngeen dellu maam Ndiaye jëlee interview bi. waxal tuuti ci appel bi ci princesse Absa Diouf ak sa diggante la princesse la reine sa diggante waaw. mani may leen maam Ndiaye Sakho mu interview bu paree dalal ko wax ci sa ñaari jéeg yu baax yi. Abdoulaye Diouf dama ne c'est la première fois nga ñëw fii mais bésu appel bi ñu gis heure bu dooree maam daanaka day commencé ñu naan def ci màggal yi day def ci diggante mag laayee ni appel bi appel bi diggante ak laayee ni bala maa ñëw si bés bi. waaw guy gi loolu boo ma ci laajee damay kontaan barkaal la laayee ni dañoo baax yàlla boole maam ñoom maam ay xaritu laayee ba pare ñu gis nekk markas suñu wootee lépp lu ma jàppoon dama koy baax ndax ba ci démb bi ma dajalee kas bi ñoom ñëpp dañoo ñëw macha allah ku ci ëmbari mu baax ni ñoom ñëpp dañoo ñëw kon laa yéen a mën a te ñëwuma rek du sa digganteeg laa yéen lan waaw laa lañ ndax baatu laa ilaaha illallaah la ñëpp ñu wootee ak kenn ku mën a woote ak ku mën di doon man Mame Ndiaye daf lay seet. waaw journaliste yi ñu laaj laaj leen. waxal ma wax la laaj leen lu laaju nag sa diggante ak moom laaj leen laaju appel gars yi laaj leen laaju appel non wax dëgg ko mais laaj leen laaju appel. maam maam tey ñu fekk na kër Touba maam na nga wax dund. kenn teewu fi kenn teewu fi. amoo ba xam fay naa la bu baax a baax. maa yaa ngi ci jàmm. maam sa diggante laay mi. ñu gis xewoo leen benn yoon à chaque fois. bu ñu sa ma koy la ñuy wax. te laay mi dafa woote bu di woote ci jaani woote lépp benn la moo tax ku woote rek la ba mu neex. tey nga ñëw seet si Pape Seck Touba Couture man sax tey doo nga xam ne murit la parce que li mu def ci laayeen bi wax dëgg yàlla yombul ko ko fi def tey geste yi mu def nii ba barki dem ñu gis bi nga màggalee coow li bari mais taxul nit ñi ragal que ni def lu baax daal ni ko bëgg ñu ngi koy def boobu tey waaw def lu baax rek moo am solo nee naa la euh, lu jëm ci yonent ci beeg yàlla sunu borom kenn du ko def di am tànk ginnaaw man sax taxul ma xam ko bu baax jabaram ji laa xam muy ëmmëri bu nekk nit ku baax ñu bokkoon salon mu nekk sama mag bu baax nekk nit ku am personnalité nit ku diin man nee naa la chaque jour guy gi rek su may àndal damay seet li may àndal xam ne réew mi dañ fee marqué seen empreinte ci ñoom lay àndal ndax nit ñu baax rek moo mat a àndal ndax tey moom euh, ba appel bi jotee dama ko daf ma woo téléphone yëgal ma sama kast rajo mu def geste bu rafet ñëw tamit muy si

rek am solo. baax rek moo am solo kuy gi fii bu kenn sonal kenn yow du mel ni lem fi ku baaxul kenn du ànd ak yow baax rek moo am solo barke Serigne Touba Mbacke boo baaxee nit ñu baax ñee leen wis bu fekkee nag moom dangaa ne ci réew mi di wax def ci sa paaka nekk cest à boo wootee kenn du la wis ndax nit ñi kenn moomu ginaaru kenn nenu leen baax rek a am solo ndax bisam bi tey bi ma nee fii laa ñëpp a ma ne kooku këram macha allah képp kuy ndaanaan boo demee da nga ko fay fekk way wi rafet kon lii dañ koy sante yàlla ndax ku sañoon am way wu rafetee nii mais ni nga wil Siri maam maam Siri nag Siri Siri daa la faa sama waa ji ni coow li coow li léegi mu leer loolu <laughs> kañ lay leer nag <laughs> mais Siri Siri attanul maam waaw léegi ñu dalal ko ah ñu dalal ko les gars yi naay ah.